أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما barke Serigne Touba mbokki julli di mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziare del soit ak yéen ci waxtaan yi ñu jagleel xasaayid yi Serigne Touba yi tey nag ñu bëgg a waxtaane xasida ak matlabu shifaa yi matlabu shifaa la goo xam ne xasida ak la ci ni ko sëriñ bi feeñale ci tur wi xasida la goo xam ne li gën a siiw sëriñ bee ko taalife woon ci yeen jolof jëlee nañu ci Cheikh Moustapha Saleh muy wax ne sax bi ko sëriñ bi bind moo tawat ba mënta bind wa ashtaki ilayhima min ad-darar qad massani hatta arani muhtadar nee bayit boobu rek boo ko saytoo gis ne ki wax xasida gi boobu bindul waaye dafa am ko muy dicté muy bind nee nañ nag soxna Awa Buso woy juru Cheikh Mouhamadinil Fadal la doon dicté muy bind xasida gi sëriñ beng ko def ci baxrul rajaz baxrul rajaz nag liñ koy faral di waxee sëriñ bi taalif na ci lu bari sëriñ bee ngi tàmbale xasida ci tudd turu boroomam ndax yenent bi dafa wax na lépp loo xam ne lu am solo la te jubluwaay ba di yàlla tàmbale ko turu yàlla dog na ñëw yoonam do àgg fa mu jëm ca yàlla moo tax woyam yépp yu ci bari day tàmbalee bismillahi rahmaani rahim gannaaw gay da cay teg julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima daal di tegal boppam turu xasida ga haza matlabu shifaa'i fi tawassuli fi tawassuli ilallahi taala bil mustafa wala wax ne haza matlabu shifaa fi tawassuli ilallahi taala bil mustafa sallallahu alayhi wa lii mooy li nuyu sàkkoo wala càkkuwaayub saafarawu wér te jaare ko ci tawassul jëm ci yàlla ci ki ñuy tawassule mooy muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa mi nga xam ne bokk na ci turam al mustafa bi tàmbalee xasida gi hamdan limunzili dana wadda'i wa munzili shifa'i waddawa'i jëlug cant jëme ci boroma mi nga xame ne wax nene mooy wàcce wañse di wàcce jàngoro waaye nag gannaaw loolu mooy wàcce saafara ja gannaaw ga it mooy wàcce la nga xam ne moom lañuy jëfandikoo ngir jële fi tawat jooje muy saafara ba tey te may wax ne moment bii muy bind lii bu doon keneen day bu tàmbalee la muy njëkk a wax boromam du doonuk cant waaye njàmbat lay jiital waaye sant boroomam la njëkkee ndax sëñ bi dafa wax ne fa ma war a sant saa borom laa fay remplacer ca njàmbat ga yalla mom mu moy kan muné man amara al ibada bid du'a li yadfa'u bihi anil bala'i suñu borom mom mo digal jam ñi ne len amna bala yu ma wacce bala yoy nak man ngeen ci fegu ni ngeen ci fegu moy de len ma ñaan tumma ala man xaysu massa za marad yabra bila butin wa faaza bil gannaaw ga topp na ca ka nga xam ku tawat fu mu laalaale tawat ja daal di wér ci lu ak yeexe mel dafa am ku muy junju kookoy kan mu ne muhammadin kookoy sidna Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom laa wax ne tawat ju la nit bu la raaye mu wér tabi bi naa ndax mooy suñu docteur bi nga xam ne dafa xeriñ lool li nekk ci kawam lu mu azka salaamay alkarimi xéewal suñu borom muccuk suñu boroom gi gën a kawe yàlla na ko suñu boroom dotti ci moom te ànd moom yàlla loolu bu mu yem ci moom waaye wal ali wa sahbi zawil ala i mahtajazul lasqaami li shifaa'i loolu bu mu yem ci moom na jàll ba ci képp ku nuy tudd di ko tudd muy aw ñoñam ak ña ko muy saxaaba yi te ñu ñuy wéy ñu kawe feek ku tawat la mu gën a yittewoo mooy saafara daal julli googu nay wéy te ku xam-xam ne ku tawat la mu yittewoo mooy saafara kon julli ga du dog ndax ku tawat du yittewoo dara dul saafara daal di wax fa mu jëm ak la ko yitteel haza wa inni al yawma zu aw jaa'i mubtaxiyan awnal mujibi daa yëg leen bi may bind xaside gii maa ngi jànkonteeg ay métit tey nag maa ngi ko booleeg di sàkku ndimbalal suñu boroom mi nga xamee ne ki ko woo dan la wuyu washtaki ilayhima min ad-darar qad massani xatta araani muxtadar maa ngi koy jàmbat li nga xamee ne dal na ma laal na ma ci lor ba fi mu ne moo ngi mel ne maa ngi tëdd di sukuraat ndax mettit rek woo sunu borom ci turam ba nga xam ne nee nañu ko ko ci woo mu wuyu la woo ko ci juróomi yoon te waroom xam-xam yi nee nañu yaarab banaa gii boo ci wooyee yàlla juróom bu mel ne nit ñu koy misaal day mel ne nga ne ma pëkk pëkk ne ma Moustapha ma ne xinit nit di la xool nga xam ne li ngay wax maa ngi lay dégg yaa banaa nit ñu soo ko waxee juróomi yoon mel nga ne ku jaar foofu yàlla. bi ko yàlla wuyoo mu ne ko idfa durrana lépp loo xam ne lor la ci nun jañ ko ndax fi tawassudi ilallaahi la wax kon faaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu jaar fa mu ne ko bi jaahi xayril alamin al akrami summa bi yum ni ramadan al azami loolu nga ñuy jañal nag ñu ko jañal ci barkeb yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mi nga xam ne li univers bépp bu ñu dajee moo leen gën moo leen gën a tedd nanga ko defee ci barkeb weeru koor wi nga xam ne moom nga gën a teral def ko muy sangu weer yi ni nga defee seydina Muhammad alayhi salaatu muy sangub jëmm yëpp yow yàlla yow borom yërmande ju yaatu ji allahu yaa rahmaanu yaa rahiimu yaa barru yaa karimu yaa azimu yow borom yërmande ju yaatu ji fii ci àdduna yow borom yërmande ju xaj ji fa la ci àllaaxira nga xam ne jullit ñi dong ñoo cay bokk muy contraire bu rahman ji nga xamni fi fii ci àllaaxira la taw bi day tawal yefar di tawal julit yow mi nga xamne ne ku bax nga ku tabe nga ku tedd nga ku kawe nga ku mag nga exfir zunubana jegal nu sunuy bakar te xabbal nangul nu sunuy ñaan wax mi himana wata jawasana na aaral lak te jegal nu sunu ay rëcc rëcc yow.